Sall noo ko gisee parce que yaa ngi wax sànq ba tey li ñu def ci ay ñoom dafa bëri ils sont un peu peur pour ñoom mais man là je parle pas de ñoom mais je parle de Macky parce que certains ñi ngi wax que ne mën nañu ko sax toppee haute trahison mu doon loo xam ne lu xaw a kii la fourre la on comprend pas mais par rapport aux derniers actes posés par le président Macky Sall euh, ndax lu ñu mën a envisager la wala am ci am ci ragal. bon man nag yi Macky Sall yéenoo ma ko dara lu metti te bëgguma vraiment ay ñu ñu jël suñu. président malgré li wax na def na ko yëpp vraiment non yooyu moom. nañu faw ñu tooñ nañu Macky mhm. mais faw ñu ñu am grandeur. man mais mais c'est que ñëw toog 12 ans def du la neex. mais on est 18 millions moom lañu yàlla taamu nañu yaay moo ñu dirigé pendant 12 ans c'est pas n'importe quoi. un mhm. président de la République. il a fait des erreurs il nous a fait trop de mal Macky Sall il nous a fait trop de mal il a fait des mais excusez-moi je voulais dire des bêtises mais ñëw ma ko président. <laughs> mais il a fait vraiment buñ ko humilier buñ ko tuutal buñ ko parce que buñ ko tuutalee. Mhm. c'est pas l'homme li muy incarné la ñu war a xool. nit ñi il faut que ñu fàtte ni euh, ñu ñu a fàtte ni il s'appelle Macky Sall mais c'est le président de la République du Sénégal. Mhm. président de la République du Sénégal titre la boo xamante ni histoire dina retenir li mu def. Mhm. dinañ ko bind ci ay livres xale yi dañ ko jàng humiliation boobu doy na mais pour man bu ñu. bu ñu ko buñ ko buñ ko tànc ci miir nañ ko aménager parcelle de dignité moo tax vraiment lu mu métti métti métti métti métti euh, xëy na jàpp naa ne homme politique sax mën nañu ko yëkkati pour xëbalaate mm-hmm. mais war war ñoo egg ak foofu euh, président Macky